voilà comme promis dañuy jàll ci yi xew. yi xew tendance mode tendance mode et puis comme actuellement tendance bi festival de Cannes la Pape Cheikh. Uh-huh. Euh, damaa demoon Cannes. ok. Hmm? <laughs> sama jet privé la jëlal moytu moytu moytu da nga Cannes. waaw. jet bi la. am am na ci benn ku ah? def sa rubrique bu la bàyyee nga fekk rek <laughs> dañ koy comptabiliser te bu ñettee dañ lay jox symbole non dañuy compter dañuy compter pour ëppale semaine bi. waaw bon euh, festival de Cannes. de pour xool xam nga souvent dañ koy comparer ak un défilé de mode parce que monter ci tapis rouge ba monter des marchés yi ku koy def da ngay sañse ba mat sa géej gi comme exay exercice donc euh, dama sélectionner juste cinq robes yoo xamante ne gis nañ ko Cannes pour xool euh, ñun kan la ñuy jox palme d'or robe bi gën a rafet kaan pour le mm-hmm. moment pour début bi avec Aïssa Maïga moom Christian Dior moo ko solal mu def tout blanc bu baax ni xam nga génn ci ci peau noire et blanc c' est très tendance actuellement été bii nii ak ay couleurs flashy yu bëri mais le le blanc est très tendance donc Aïcha Maïga mun ngeen ko noter pour l' instant on va voir c'est sur combien sur cinq c'est bon sur cinq ok d'accord puisque cinq personnes lañ na ku nekk jël ngeen noter donc pour Aïcha Maïga man def naa sama ay samay gars. donc après on a kenn Kendall Jenner la petite sœur euh, Kardashian bi nga xamante ne mannequin la au niveau des États-Unis elle mhm. cartonne actuellement dañuy wax que dafa ñëw euh, Cannes pour def opération séduction pour gën a am public bu gën a bëri donc moom euh, Chanel moo ko ñëw voilà noir et blanc classique de Chanel tout le temps seen défilé loolu du ci ñàkk mun ngeen ko jox benn note sur cinq Kendall Jenner. Kendall Kendall Kendall Kendall Jenner wala nga def sœur Kardashian rek. seex la de. ok ak kan. alors après on a euh, Lupita Nyong'o moom Calvin Klein moo ko solal xam ngeen Lupita moom instant yi dafa xew. li ñuy uh-huh. wax que elle est en vogue elle est au limite it girl la ku nekk da koy bëgg a solal donc là elle était en Calvin Klein bleu tout tout simple mais elle reste très chic on ñu teg ci Blake Lively. ak ah, euh, benn euh, robe longue bu wàcc décolleté XXL moom Gucci moo ko defaral donc euh, moom tamit pour monter des marches moom moom li ñuy wax it girl moom la lu mu sol dafay xew. Mm. donc ah, créateurs yi dañuy créer ay sac ay dàll des lunettes yére lu nekk ñu jox ko ko parce que bu ko solee. Mm. tout le monde a envie d'être habillé comme elle et on finit avec Ayem Ayem je sais pas si vous vous rappelez moom moo defoon benn télé-réalité lañ ko xamee. Secret Story je pense. Ah finalement elle est animatrice là dafa dem Cannes parce que dafa am benn rubrique muy def l'œil d'ayam à Cannes donc moom Zahir Mourad moo ko defaral je sais pas si vous rappelez bi mu fi indee ay robe de mariée robe de mariée bu ma waxoon moo ma a neex sauf que euh, créateur je le mhm. connaissais pas bien moom moo ko sala tamit Cannes elle a fait le buzz parce que robe bi dafa ah. transparent de loin je sais pas si ça se voit mais c'est très transparent donc bu dee noté ngeen ba pare ngeen wax ma yéen pour yéen kan moo jël palme d'or ci sañ mhm. sekaan pas parce que man euh, dama trouve que c'est c'est très joli c'est correct. c'est classe ah c'est classe. classique ah ouais, c'est vraiment c'est très très classe. et puis euh, c'est bien centré quoi c'est ouais. bien centré quoi comme on dit. Hein. Pas cher moi j'aime bien. Alors, Man, ça gars, je trouve que c'est trop, ça fait trop simpliste Soft, en fait pour, ouais. pour monter de, ouais. monter, dans la monter des marches. En fait, hein. ouais. Mais Cannes, en fait, quand tu y vas, c'est pour te faire voir. voir. Donc euh, après. Bon, moi après, c'est mon goût, c'est mon avis. Hein, Et donc, puis les noirs, ça blanc, donc on y a Ah voilà, c'est bien. Ah, hein. C'est bien porté, hein. C'est tard. après sama avis la quoi. Ah, après moom il est euh, dubitatif. waaw man man dama am problème ah dama am. entre kan entre ban ak ban. dama am problème ah. Euh, ki fant borom fant bu rouge bi. Blake Lively waaw fantam baax moom fantam li la ñuy woowee fant XXL. ak euh, euh, keneen kii borom borom transparent bi nu mu tudd. ayam ayam itam ah, tubaarkaal daal la ca. Mm-hmm. yow daal na ah, feeñ rek indilaatal ayam ma xool ko. <laughs> Ah, robam yaraax na ma xool ko est-ce que tonton mag mën nga koo. mu may la ko ci pegg bi te nga may ma ko ci pegg bi tuuti rek ah. tonton mag groupe la ko rek s'il te plaît si possible ah regardez ah elle est belle sa robe. elle est magnifique ah et transparence bi lii xam nga lu leerul bugguma man damaa bëgg lépp lu transparent <laughs> lépp lu leer. moo tax bu euh, àjjee bugguma moo tax fente XXL beeg transparence bi neex fente bi à like. et euh, bi aussi ah. Euh, en ce moment dafa tendance parce que li xew au Sénégal et partout xam nga jupur. Mhm. dañuy def jupur ba pare mu def tuuti transparent. gisoo ma nii en ce moment ma nii ay bën bën. la ay bën bën nga am. <laughs> ay bën bën nga am ci sa yére bi. yeggali sa sa sa sa sa classement merci voilà. parce que indi ma ko pour de. ah nga def ñoom ñaar ci ci yaatal ni nga ko yaatalee kontaan naa ci ah. ba pare war vraiment maa ngi ci kon xool leen ci kaw ba ci suuf jërëjëf jërëjëf Bey. en plus ak noir et blanc bi man daal kii laa wote. ay yaa ngi ci ay ma jërëjëf Bey. <laughs> bilaay tonton mag yaa yaa ñàkk foowee sa bopp. ayam yow doon sama sago chaque jour da nga ñëw yeewu leen. waaw ndax ayam mi mu doon gros plan wala nii. <laughs> daf ko gros plan donc man moom laa votel. ayam Madou ah. oui moi je suis ayam aussi pour ayam. Maïmouna ayam pareil. Euh, man personnellement Blake Lively dama ko fan parce que. it girl la dafa mën sañse tout le temps elle est au top tous les jours lu muy sol day nice. Mhm. mais quand ayam. chapeau parce que robe. ah mais non ayam chapeau parce ki war dem jàng école non les goûts et les couleurs ne se discutent pas. dama nga jàngi dama nga jàngi école. non je suis désolé non parce que mënoo fi gis mënoo fi gis. lu yàlla lu baax lii. c'est-à-dire que nga xool lu fat. mais mais tey am na ñoo xamante ne tey am na ñoo xamante ne tey am na ñoo xamante ne tey lu transparent wala nekk. moi j'aime pas parce que c'est vulgaire. non même pas c'est pas quelque chose que eh. j'achèterais à ma femme ou quelque chose du genre. j'aime pas kenn déggu la kenn déggu la. moi je préfère lu nice c'est-à-dire lu nice. fashion police in the house.

bu kii euh, jolle dañu ko bàyyi ba mu musique ba daaneel ñu doo ko yëkkati. <laughs> ce qui est normal. Ndiaga sort dans ce corps. voilà sort dans ce <laughs> corps. sort de ce euh, corps plutôt. avis d'expert. mais Alphée ngi fi professionnel. qui est dans la mode elle s'y connaît. je suis pour Ayam ah désolée. Moi, c'est ça hein. il faut que les avis diffèrent. et puis c'est très joli hein. elle sort bien c'est ça sort bien ça ça lui va. et puis c'est c'est très sexy. femme da ngay sexy jigéen da ngay sexy. remarqué à Cannes tout le monde en a parlé. et Zahel Mourad benn styliste la boo xam ne man je le dama koy découvrir ainsi. instant yi mhm. naa la envoyé photo yi tout à l'heure il avait fait ay robe de mariée ci bridal fashion week bi nga xamante ne ay robe de mariée rek la ñuy bi au niveau des États-Unis mhm. une robe magnifique foofu laa ko remarqué et là j'ai vu que moom moo habillé ayem pour euh, festival de Cannes bi et comme on dit je pense que dafay dem donc ayem euh, suñu palme d'or sañ c'est pour semaine bi comme Cannes day continuer mhm. dinañ indiwaat yeneen robe pour xoolaat kan mooy gagné nga raxas sa bët yi sais, <laughs> je te dirai toujours, manger des goûts bizarres. Man, j'aime bien ce qui est correct. Quand c'est correct, j'aime. <laughs> quand c'est bizarre, quand c'est bizarre, j'aime pas. Quand c'est joli, c'est pas. Mais, non, non, non, quand c'est correct, tu n'aimes pas. Non, non, non, et c'est le contraire. Oui, mais c'est sexy. Je suis pas, vous ne me comprenez pas. Je ne dis pas grave C'est joli. Tu sais pourquoi on Mais tu n'aimes pas. Xam nga lu tax mënuñu la comprendre. Ah? Li ngay wax nii, mhm. ñii di ko seet, ñi lay seetaan nga bon nga mën a waxee. Mm-hmm. Ñun xam nañ la, ah. xam nañ la bu baax. Fekk nañ la Almadies ba tey. Fekk nañ la ci mbedd Almadies ba tey. Ngay appréciation mais vous vous vous confondez deux choses nga ni que boo ko laajee avion. exercice soo ko laajee avion rek ah. Eh, da ngay eh. daan continuer wax c'est eh, mon avis. man gis naa la c'est mon avis. mais robe bi pourtant nuancé. non je ne participe pas waaw léegi waaw léegi déglu déglu leen xaaral ma wax la. waaw léegi déglu leen déglu ah, leen déglu waaw léegi kenn laaj léegi kenn laajatu la léegi sa avis ex. noppi na ok yow ñu fekk la ba tey ci mbedd almadi yi. jamais musoo musoo xool ki gën a yaraxle mukk mukk. waa léegi ak dégloo. exercice sama groupe nga bokk de sama bakkum doom waa léegi léegi déglu la déglu la déglu eh oh. pause tax mu tontu la. voilà. gis ngeen ni euh, jàmm neexee. ex waaw ok tu as raison. ak lan boobu gën ak képp ma indil ay alors euh, photo bi dama bëgg ñëw dama bëgg ñu wan ma ko ngeen wax ma à votre bijou imagine ngeen ku sol yi Pape Cheikh nag bañal mais déglu leen ko di di nga natt wala doo natt sama léegi si bi keroog. di nga natt affaire tu vas mettre ta jupe. non tey damaa ma jupe bi mais indi ma jël na andi jupe bi ma doon alma jupe. tu vas mettre oui tu vas mettre. ma doon paas damaa nege nege ah. tey. Oh, c'est grave <laughs> bàyyi tey kay ay ndaw la woon pour pour sama voyage. gisoo sama léegi sax fa laa fàtte tey. d'accord <laughs> papa laa yërëm dama maa léegi ça c'est quoi est-ce qu'on peut regarder te plaît. à votre avis à votre avis moo tax sànq ñu ne leen euh, euh, yi xew souvent moi je considère ces gens-là comme des fous. Hein. Comme des a Non votre avis qu'est-ce qui peut pousser à mettre une jupe comme ça am na. les Écossais qui le mettent. fashion mania fashion mania pour toi. la fashion ah folie oui si tu n'es pas écossais journée de la femme à am nañ beneen am nañ yeneen am nañ beneen troisième eh. photo ba. ba pare ñu épilé wu sax. oui ma c'est pas du mode du mode du visitage en fait loolu moo tax euh, tey duñ ko tey c'est c'est pas une tendance ne vous mettez pas en jupe les gars ce ma faute de ma <laughs> de ma ah, responsabilité. tu nous as dit que tu ne parlais que de que de de les tendances mais tey dama ko def exprès parce que su ma tout le monde va penser que c'est okay. mais c'était une manifestation boo xamante ne xale yu góor euh, ak jigéen yëpp jupe lañ sol ñu tuddee ko journée de la jupe ay lycéens yu nekk Nantes ñoom ñoo ko defoon contre le sexisme ah sur ah le fait que voilà le fait que parfois dañu naan non jigéen nga mënoo def lii jigéen nga mënoo def lee donc di mhm. yemale jigéen yi tout le temps di xool affaire yi ci genre góor jigéen donc ñoom dañ ñëw ñoom ñëpp se mettre en jupe mhm. pour lutter pour les femmes lutter contre le sexisme moo taxoon mais du tendance su doon tendance am nañ beneen photo topp nañ écossais yi bu yàgg. waaw mooy ah, dernière photo bi. moo que ñoom ñoo ngi c'est en non chez eux ñoom seen dëkk moom góor de jupe ba sa ñaf vestam ci kaw. <laughs> ok kon euh, tonton mag mi woo mi woo léegi naan ko euh, yónnee ma ko benn jupe. <laughs> tiens-toi bien comme li Mado di wax c'est pas Doudou Tendance semaine dernière euh, c'était juste un jour boo xamante ni presque tous les hommes devaient se mettre en jupe. c'était que ça voilà c'était pour c'est pour ah. lutter <laughs> le sexisme. favoritisme bu leen utiliser Cheikh Tidiane Sène léegi je veux juste préciser ku sippuwul ba cëkk itam. sippu nga sippu sippu nga loolu yaa ku ko wax kay dal waaw. léegi laa def zip mini wala trois quarts. tennis. parce que zip tennis ngay gën a mën ah, a tennis. zip tennis waaw maa ko wax.